xam ne defoon na ko gannaaw ba ki nga xam ne nii moo nekk waajuram bu jigéen génne àdduna Sénégal yi bëri na doon wax naan comme que euh, Wally Seck fu mu toll def na pose dafa mel ni musique bi fu mu xool dafa xaw a taxaw parce que ñu bëri dañu yaakaar ne peut-être kii di Sidy Diop dina nekk au devant de la scène ba ñi xaw a sax euh, ne est-ce que du dem ba tolloo kii di waale balaa ko Seck mais non. kuñ gis mooy kii di Momo Dieng d'accord kenn dootu ko laam laamee si mënu si mënu woyam Sénégal yi bëri doon wax naan Momo Dieng mën na woy waaye xam waaye du def showbiz euh, loolu moo tax maanaam à chaque fois bu génnee clip dina doon bu génnee son dina doon it mais problème bi mooy kenn du ko dégg si benn coow kenn du ko dégg euh, muy toj bois di maintenant nag ce n'est plus le cas Momo Dieng chaque dimanche moo ngi foofu sa COP 21 xale jigéen yi fees fa dell les femmes les plus en vogue de boo fa weedee dimanche nañ fa dem ko xool alors en tout cas mu Momadien moomu le fu mu toll nii nag euh, almadi moo ko moom waaye xam ngeen ni tamit retour de Wally Ballago Seck tamit dafa nar a am euh, deme après deme ak dimanche maanaam le 26 le 27 euh, ak le 27 le 28 ak le vingt 29 mu tombeloon tamit lii di anniversaire du Wally Ballago Seck Sénégal yi di posé wu la question Momadien nan la nar def est-ce que dafa nar a ba léegi nekk. maanaam champion foofu sa euh, Almadi wala Waly ko Seck bu ñëwee da koy détrôner Sénégal yëpp lu ñuy la question am na tamit ñu ni ñoom ñaar bokkuñu style d'accord mais tamit Almadi dafa xat-xat boo xam ne bu balaa ko Seck naree tëgg dimanche soir Momo Dieng nar a tëgg dimanche à partir de 18h fanks yi fa la dem mais bu fekkee bokkuñu ay fanks ku nekk ak lu indi waaye kii di Momo Dieng dafa indi lu bees nag. saf yendu saf na ba noppi na ba noppi jarul sàppali mais sa Wally Seck bu ñëwee dina sàpp loolu sàpp bandi <laughs> oh sa fils de njugañee la ah xale bi nga yëngal saf na ba noppi borom ko sàppali oh jarul sàppali moomu man dama xamul bu ko sàppali woon kon Sénégal fu ñu jëm laa ilaha illallah doy na waar doy na waar de waaye nag kañ la affaire yi le 27. ah mm, mm-hmm. Momo Dieng le 5 la fay tëggaat incha allah. Momo Dieng la fay tëggaat. Mm-hmm. mais bu boobu Viviane tamit dafay tëgg. Viviane dafay tëgg. Pama Pama ak moom rakk yam rakkaam yi tamit dañ fay tëgg ah. ah ki des fois ah, dafay tëgg foofu. ak Viviane waaw. Mhm, Viviane dafay tëgg foofu seereen ma. cee kopp. kopp noonu tànk ka moo xew. mais problème mooy waaye moo tëgg guful kopp. Eh, eh, daf ko daf fa sañ a tëgg. su waaye doo fa tëgg nag. du fa tëgg de. billaay bu fa tëggee moo jël ay gaañ la moo tax. maanaam bu fa tëggee. mos mhm. naa ko laaj mu ni moom bu doon def maanaam imam euh, genre loolu ko waxee quoi mhm. comme njiit di mooy si si Momo Dieng la koy mu doon président. nii nii bu fa tëggoon COP wàcc. kan waaye. dañuy interdit COP. lu leer laa lay wax. waaye borom game bi nag. mais moom sonalu ko temps moom moom sonalu ko de sonali lan moom sonalu ko gars yi ñoo gis ay sona rek. mais moom sonalu ko artiste musu ko fa def. mais moom moom borom COP. COP moom moom fu mu ne nii COP doonatul COP ndax COP fu mu ne nii paan la COP moom. moom moom fu mu ne nii def na ko paan wax dëgg fa moom moo jeen Wally Seck du combat du combat moom moo du combat gars buñ di jaxase lu jaxasoowul Wally sekk ngi nii moom moo jeen ngi nii bokkuñu moom moo jeen bañ na ko ba soow bisu moom moomoo su soow bisul soow bisul non non ko yow moom moo yàgg nañ dégg ay mbiram mu koy tocc mm-hmm. am déet mais moom bu ñu ko déggee dégg dëgg dëgg dëgg dëgg ci pause Wally Seck bii la de comme bi mu yëngoo ci pause Wally Seck bii la ah waxtaan wax dëgg ca la mooy li am mooy li am bi Wally Seck posé yàlla dogal yi fi xew-xew fi muy sunu yaay soxna kii ne di ko ñaanal sunu borom xaaree ko àjjana te yéexenu bu wér a wér a ndax nag yaay ju baax la te uf njaboot ba mu ñibbee àjjana sa waaye arrêté toog bàyyi yëpp am ci lu mu focus yaaram ca la mu moo wàcce ko mais ba waali di tëgg ay vogue ak feneen ak feneen ak feneen loolu doo ko ci gis kon waali moo baari woon ma Dieng hmm? waali baari na ko dul Momo Dieng mais bosam dafa gën a fës parce que waali dafa pousse rek moom mu ñëw ma la waaw parce que dafa wone fi mu féetee Momo Dieng dafa wone fu yaaram maanaam maanaam li ma la doon wax maanaam wéykat yi cinq personnes yi doo leen ci génne ay eh, ñoom Momo Dieng doo lim cinq personnes di ko génne ci woykatu Sénégal yi par force fu ne nii loolu dafa am yàlla dafa dogal Momo dafa am défi bu mu def. après mooy almadi ñëpp ci taliba lañ foogoon almadi moom moo tax nañ ñu bëri xam ne almadi am na ay ruq. kooku voilà kon loolu loolu défi la wala. défi la ruq ba ca gannaaw géej ga noonu sànni ba noonu <laughs> kenn en général demal xool nit du fa dem di baali ay baara mundi la ñuy yem aki ay vog ay xawma fanaan dafa ruqa nekk yooyu dem merci moom mu dem ca mbalaxtan ga ca biir doo gis circulation doo gis dara li jënti ko ba sa biir moom moo dem fa léegi da gis léegi mu dem ba créé ko fa moom mu dem ba créé ko fa kooku liggéey na wala liggéeyul. bu baax a baax kooku bu liggéeytoon dina am loolu. bu wéytoon dina am loolu. mu ngi noonu nag noonu la demee bu dee waa. leneen tamit lu mu indi mooy tamit li nga xam ne nii peut-être xaw ma ndax amoon na Sénégal waaye bëri fi woon bokk mooy yendu soirée à parti de 18h. waaw loolu yendu boobu parce que foofu ni muy demee la te nag nañ ko sante it jaamaan express. waaw. moo ko fa njëkk a def génne ruq boobu. non moo génne ruq boobu mais. mais mais mais kay tax ñu xam ruq ba. non mais COP 21 mais ça veut maanaam comme comme comme comme yenn boobu style boobu. Mhm. c'est Jamana Express. moo ko mais mm, gis nga lu baax dañ ci roy. da gis roy dàq mais nag moomoo ba mu demee ba ba téye ko. da koo nangu <laughs> wax dëgg fa yàlla nag dangay xam ni nag doomu yuga yuga ji. da mooy borom moo ko safal te nee na jarta sa man man xëy na foofu li muy étage mu bañ mu daanu moo tax mu ne leen jarta sàppali ndax day bañ waa kaw ñëw ci suuf tëbb xëy na loolu lay bañ moo tax mu ne leen jarta sàppali waaye wax dëgg fa yàlla. wax dëgg fa yàlla mu ngi liggéey. Mhm. wax dëgg fa yàlla mu ngi liggéey. mu ngi liggéey te mu ngi liggéey moo Wally nag c'est autre chose. mais tey jii imagine moom muy tëgg dimanche soir Wally mhm. di tëgg dimanche soir maanaam à partir de 18h wala 19h lay commencé jëm 22h 23h nga nar a tamit jóge fa a baax di Wally balaa ko Seck à partir de 2h dina am ñoom ñaar kum si yàqal. duñ ci yàqal kenn. bien sûr heure bi bokkul waay. heure bi bokkul mais eh. munoo jóge soirée bii dem soirée bi même fekkee. Ah, en kay en kay Wally Seck xam nga kañ lay tàmbali soirée. daanaka 3 heures lay tàmbalee woon. 3 heures voilà léegi moom moo 18 hmm. balaa mel ni jeex mala une heure mën nga demaat sa kër bu la ko jaralee man da jaralu ma ko ndax man maa demul yi buwaat bay ba ba mu jaral ma man fecc fii ñàkk ba tooy sànni fa sama xaalis demaat sama kër di ñaqaat di ñëw pour man de def ma ko lenn daal mun naa ko. tey bu ñu doon cant ko 21 ma dem cant foofu ju pare cant foofu ma cant fa loolu moom sañ naa waaye ay ay boîte fecc ma dagañ nga nungus nga namas ma ñimmel non jaralu ma ko de waaye ñoom ñi mu ko jaral mën nañ ko te dañ koy def te dinaa la wax leen feesal ñaar yëpp te boo xool day filmer même personne yi nga fay gis même personne nga fay gis parce que public waaye nag ñoo wuy ji Momo Dieng Louraas Diop boo ñëwul mu ñaaw deet ak guitariste si Wally Seck bi waaw mu ngi noonu kese loolu la rek public bee mooy ñëw fii benn public bi la public waal mooy dem foofu léegi public waal ñooy demaat ci moomu 18 heures guddi gi ñu dem fa jeexali ko. mais est-ce que dina continuer. dina maanaam di moo jee def nii est-ce que maanaam dina continuer. waaw mun na continuer waaw waaw waaw. mun na mun na mun na mun na continuer xam nga tax mun na continuer. xam nga mun na continuer mooy Momo fu nekk Prince Sarr Momo day liggéey. tey prince art bu ñu ko ne woon arrêté foofu daf fay arrêté yóbbu ko feneen daf fay dem parce que nag ci liggéey la nekk loolu la rek kay dafa nekk ci labeelam moom it Wally Ballago Seck di liggéey bokkul bokkul bokkul heure sax bokkuñ waaw ku ci nekk daal yàlla na ci yàlla defal jàmm ci sa bis lépp taw feexe neex. alkaata fu mu toll ko jàpp nga fu mooy numéro 2 bi. mooy mooy numéro 2. Momo Dieng. Ah. waaw. kon tey nangu. mooy numéro 2 fu mu ne nii de. dépasse nangu nanguwuma ko. danga nga jàppoon ne Sidy mooy numéro de fu mu ne nii. Sidy talul ay numéro Sidy xam nga lu mu tal. 29 hmm. moom 29 juin moo nekk ci bopp bi sii di talu fi sii di talu fi nekk nan ay numéro 2 numéro 1 numéro 3 Sidy zénitam gii moo ub boppam bi. te na ko ci gars yi jàppale jaanal ko mu am ci ndam. surtout loolu. Hmm. alors alors bu ñu paree foofu rek day accéléré daal dem si leen li nga xame nii moom tamit jégalu euh, moo nekk kii di Ndeye Ndiaye Bane